rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahumma fi xayaati wajal waadi wa tanala bismillahi rahmani rahim allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin al wa ala wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din bokki tedd yi xasidi gi topp ci moo tudd ahasanillahu mina saytaani giñ doon nafar ak yéen ci ñaari fan yi moo tudd ahasanil baqi mina saytaani gii ñuy dugaat nag mooy ahasanillahu min seytaan ñaar yëpp ñoo bokk uh, laay ju leen sëñ bi tënkee ñaar yëpp mi ngi leen tënkee ahansu billahi min seytaan rajim nga xam ne bii ñi génnee muy ahasanil baaqi min seytaan yi ñaar fukki bayit la ak juróom bii ñuy dugg te mooy ahasanillahu min seytaan yi ñaar fukki bayit la ak ñeent dafa am lu ko waral mooy dafa am sadd goo xam ne indil ko ci bii ñuy dugg bu ko defee kon xasida gi jeex na mooy sëñ bi da doon sant di nettali ay jaar-jaaram di sant boromam muy xéewal yu ko fa sunu borom defal waaye itam ñi daanee woon ci mujjanteel gi yëpp muy képp koo xam ne ëmb nga ci sa xol ak mbañeel ci jëmmi sëriñ bi radiyallahu anhu fooy mujj ak ni ngay gotte ko ak ni ngay sëre yërmande yàlla sunu borom ak mboolem sa yaay ba daal sunu borom dul ko nangul te da nga rëcc àddina ak àllaaxira te suñu borom dal la alak képp ko noonee sañ tubaa waaye booy xool xasida gi day ñëw gën koo confirmer ki bañ sëñ tubaa dëgg dëgg dëgg xasida gii ñuy firiwaat mooy ñëw gën koo confirmer waaye itam xasida goo xam ne ki noonu sëñ bi moom la ci sëñ bi da wax waaye xasit la goo xam ne itam moom jëmmi sëñ bi da cee wane ni ko yàlla musalee ci seytaane ni mu muccee ci seytaane ak ni ko yàlla xéwalee ak njub nu mu nekkee ci njub ak ni ko yàlla mu musale ci seytaane ak ki koy bañ fi muy mujj ci réccu rek lay ci ci riccu rek rek rek rek rek ci lay dëkk nga xam ne dafa mel ni kon xasida gee la waraloon mu dagg ko mooy dafa am nu mu doon nettali te mooy tukki bi léegi nag dii daanaka ñaari xasida yi man nga ne benn lañ ndax ñoom ñaat la sëñ bi ne ndoor waaye nag ñaari xasida la bii ahansanil baqi mina seytaani la bii ahansanil lahu mina seytaani waaye ñoo bokk benn laay bu leen sëñ bi tënkee te mooy ahansu billahi mina seytaani rajim bu ko defee kon ñi ànd taat ñi ànd ak yéen ci xasida gi incha bu ko defee am na lu ñuy fàttaliwaat muy xasida gi ñu génne muy ahsanil baaqi mina am na ci baat boo xam ne ni ma ko indee ak yéen nu ngeen ko indee bokkul waaye bu ko defee kon it man ngeen di jàpp bu ngeen indi mooy nafaali xayri kulla man takk takkabara baaqin xamaani bi masaayal kubara yàlla dàq na mu jëm ci ku dul man képp koo xam ne dana rëy rëylu yàlla mi nga xam ne mooy kii ma aar waaye baat bi moo doon xabbaan yi defe naa ne man xasida gi mu leen di awaay sax xabbaan yi la def waaye man dama gis xasida gi ma amee di ko di ko firee moom xammaan la def te di rek du xammaan yi xabbaan yi la war a nekk ndax dafa jubla rek yàlla mi nga xam ne mooy aji des ji maanaam may na ma xam xabbaan yi may na ma bi masaayal kubara ci maanaam may gaañu màgg ñi kon bu ko defee ñi bàyyaat xel foofu ne xabbaan yi la waaye du doon xammaan yi xabbaan yi mooy gën a matale foofu ci woy wi bu ko defee kon xabbaan yi danga koy xataf rek ci masaya nga xam ne xabar ji mooy kubara incha allah bu ko defee kon sëñ bi tàmbalewaat ne bisimillahi maa ngi tàmbale sama xasit gi ci turu yàlla arrahmaani buur bay xéewalaa kon bépp mbindeef ci àdduna arrahim buur bay ajiram koo sob ci àlaxira tàmbale na ci turu yàlla yàlla mi nga xam ne mooy xéewalaa kon bépp mbindeef ci àdduna ñu koy weddi ak ñu koy jaamu waaye yàlla mi nga xam ne mooy ajiram ku ko sob ci àlaxira nga xam ne mbooleem xasidaam bi lu mu yàkkamti yàkkamti yàkkamti bisimilah rahmaani bi du ko fàtte kanaa léeg-léeg nga xam ne day def lu ko ñor dëgg dëgg dëgg wala muy dàqal yàlla tuuma lu rek kay tax nga xam ne day yàkkamtee dem ci lu muy wax te bisimilah rahmaani rahim yërmande la moo tax gis nga léeg-léeg buy wax ak nasaraan si du indi bisimilah rahmaani rahim ngir lan waxut ak ñoom ci yërmande moo tax du indi bisimilah rahmaani rahim gis nga xasida ak yaa jumla tan dafa ñëw rek wax soxlaam lu mu doon lu ko waral mooy waxut ak ñoom ci yërmande ndax lu ñu wax yàlla moo ëpp moo tax bi muy ñëw indiwul tarjumaan indiwul bismillah rahmaan bi dafa jëm rek dafa tëb rek ne yaa jumla tan xat sadu bi dara léegi waaye geneen xasida goo gis rek muy sant boromam da ngay gis ne bismillah rahmaan bi la koy tijjee mu ne maa ngi tàmbalee sama xasida gi ci turu yàlla yàlla mi nga xam ne mooy xéewalaa kon bépp mbindeef ci àdduna waaye tey ajiram ku ci àllaaxira mu ne allahuma yow sunu borom maa ngi lay ñaan salli yàlla na nga dolli xéewal ta nga dolli wóolu wa baarik ta nga dolli barke ala sayidina ci kaw sunu sanga bi waa mawlaana kii nga xam ne mooy sunu kilifa gi muhammadin turam mooy muhammad wa ali moo ki waa këram wa sax bi ak ay sahabaam salaatan dollik teral goo xam ne wa salaaman ak dollik goo xam ne wa barakatan ak dollik barki goo xam ne tattaxabulu da danga nangoo bihaa ci salaatu wasalaam goog bi xadri asamati ci darajaay màggaayub saatika sa jëmm ji taxawusu taxawusa da nga musal xaasal xabdi bii jaam alxadimi ki nga xam ne mooy kiy sax dàq di liggéeyal sa sa yonentu dikk ci sa kattan dënk musal dikk ci sa kattan waaye itam dënk musal bi xaw lii ci barkeb sa wax ji nga wax dënk dënk musal minhu ci moom jëmmi sa nji watar daa te te da nga gërëm bihaa ca moom abadan ci luy sax ba faw xan hu walis ko bu ko defee gannaaw bi mu tàmbali bismillaahi rahmaani rahiim nga xam ne saa yu tàmbali bismillaahi rahmaani rahiim na ma leen ko waxoon rek la muy njëkk a def balaa muy jàll di wax soxlaam wala muy sant boromam day julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam comme ni ko yàlla digle inna allaha wa malaikatu yusluna ala nabii yaa ayyuha allazina amanu sallu mu ne yow sunu borom maa ngi lay ñaan ko dolli xéwal ak dolli wóolu ak dolli barke ci kii nga xam ne mooy sunu sang bi tey sunu kilifa ñun ñëpp sunu kilifa turam ca dëgg-dëgg nag mooy dëgg dëgg-dëgg mooy muhammad waaye salaatu googu nag na dem na dem na dem ba ci ay waa këram yëpp ak i ay sahabaam yëpp waaye na doon salaatu wasalaam goo xam ne ak barki boo xam ne danga ma ci nangulee danga ma ci nangulee ci darjaay sa màggayu jëmmu ja danga ma ci nangulee xasida gii may bëgg taalif ak mboolem ñaan gi ma bëgg ñaan waaye danga ci musalaale sab jaam bii nga xam ne li ko tax a jóg du lenn du may jaamu yàlla ak liggéey ak liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam te sax ca ndàkk nga xam ne kon danga ci musalee salaatu wasalaam goo xam ne danga ma ci nangulee ci sa màggayob sa jëmu ja waaye danga ci musalee sa jaam bii di liggéeykatu sa yonent waaye nag ci sa kattan ak ak ci sa wax ji nga wax ne a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim danga ci musalee sa jaam ji waaye nag da ko ci gërëmee wëlis ko moom kii nga xam ne mooy sa jaam bi te mu jubli ci moom jëmi sëriñ bi di laanu moo tax mu ne salaatu wasalaam goo xam ne na ñëw ba ci waa këram ak ay saabaam yëpp salaatu wasalaam goo xam ne ak dolli barki ak dolli barki goo xam ne tat taxabalu da nga nangoo bihaa ci moom ci salaatu wasalaam googu bi xadri asamati ci darajaay ci dayob xasamati màggaayub yow yàlla saatika sa jëmm ji taawu sa da nga ci musalee ba tey salaatu salaam bi xaasal xabdu bii jaam nga xam ne dafay def isaara nga xam ne moom jëmi sëñ bi jaam bi moom la ci jublu nga xam ne salaatu salaam goo xam ne suñu borom da ci da ko ci musalaale moom jëmi sëñ bi nga xam ne mooy jaamab yàlla moo tam ne taawu sa taawu sa da nga ci musalaale xaasal xabdu bii jaam te mooy salaatu salaam bi alqadimu tey sax dàkk di liggéeykatub sab yonentu waaye nag danga ko ci musalee bikka ci sa kattan bi xaw xawli ak ci sa wax ji nga wax ahansu billahi bisitaari jéem danga ko ci musale ba tey minhu ci moom jëmi sëñ bi waaye watarda ba tey salaatu salaam koo xam ne da nga gërëmee ci salaatu wasalaam googu moom jëmi sëriñ bi ba ci sax ba faw xan wëlis ko moom jëmi sëriñ bi man daal di commencé xasi xasida gi nag na ahansu billahi mina seytaan rajim ahansu maa ngi muslu billahi ci katt ne yàlla mina seytaane ci seytaane rajim ka kuñ dàq moo la siir mande yàlla léegi nag xasida gi mu ngi ko tënkee awasu billahi min sitaan day jël alif gi jël añimintul gi jël waagu jël deel ji toy ji jël baa gi jël alif gi noonu ko ko toppee ba xasida gi jeex mu doon ñaar fukki bayit ak ñeent incha allah kon mu ne maa ngi muslu ci nu yàlla ci saytaane mi nga xam ne dañ koo dàq mu lis yërmande yàlla comme nañ ko jàngale woon léegi rek saytaane dañ koo dàq ci mboolem yërmande yàlla nga xam ne fu mu toll day daw fu mu bàyyi xel suñu borom waaye képp koo xam ne nitu suñu boroom la rek da koy bàyyi xel gis nga sëñ Tuubaa nee na saa yëkkatee xalimaam gi nee na seytaane day def wëq yi daw waaw nee na seytaane day daw mbindam day daw mbindam comme ni nga xamee ni ku ragal nu muy dawee la mu ragal nee na seytaane lu raw loolu lay dawee mbindam mhm. kon dégg nga loolu watar daa biha abadan xanhu axusu billahi min sitaan rajim kon xasida gi fii la dalee ahasanillahu min asaytaani fii kulli majlisin wa fil awtaani mooy mustafxelun mustafxelun mustafxelun ahasanillahu min aseytaani fii kulli majlisin wa fil awtaani ba tey rek mi ngi sant boromam tabaraka wa taala ci musal gi mu ko musal ci seytaani ak fépp fu mën a nekk moo tax ma ne ahasani musal na ma allahu yàlla mina seytaane ci seytaane fii kulli majlisin sama bépp jotaay wafil awtaan yi ak sama biir dëkk yépp seytaane amut fu wàll yàlla musal na ma ci man sama jëmi bopp yàlla musal na ma ci seytaane waaye fépp fu ma mën a toog rek jotaay fa nii rek yàlla musal na ko seytaane du fa jege waaye fépp bépp dëkk boo xam ne sanc naa ko rek yàlla musal na ma fa seytaane du fa jege kon moom la daloon Seydina Omar ba nga xam ne jotaay bu mën a jotaay wala mbedd mum soogu saytaane dana toog ñeent fukki bis du fa jaar ngir lan ragal képp kon sëñ Tuubaa sax moom waxut loolu la Seydina Omar euh, amoon sunu borom defal ko nga xam ne mbedd mum soobu saytaane du fa soobu ñeent fukki bis am na téer yu wax ne ñeent fukki bis am na yu gën a néew loolu am na lu ëpp loolu waaye sëñ nee na fu ma man di jotaay rek wala samay dëkk rek yàlla musal na ma fa saytaane du fa du fa taxaw kon moom mooy ku kenn xamut <laughs> ahansa ni musal na ma allahu yàlla mi ne saytaane ci saytaane fii kulli malisin sama bépp jotaay wa fii awtaan yi ak sama biir dëkk yi sama biir dëkk bu ne rek bu mu mën a doon rek ak bépp jotaay bu mu mën a jotaay rek yàlla musal na ma fa ci seytaane seytaane yàlla musal na ma fa xallama ni alalimu taxlim alalim wa qaada lii fii xidmati nabil olom mu ne àllama ni xamal na ma alalimu yàlla muy aji xam yàlla muy xamaakoon bi te peeg mboolem xam-xam yi xallama xamal na ma alalimu yàlla muy aji xam taxliimal alim maanaam xam lekk aji xam maanaam xam nga yàlla dafa xam ba noppi ni yàlla xamee nag te léeg-léeg muy xamal ab jaamam na ko soob ndax wax na ne xam allamani llaahu alim bi maa yasaau min ulum yàlla muy aji xam ji xamal na ma la ko soob ci xeeti xam-xam kon loolu kenn xamul xam-xam ba na mu toll yàlla xool na ko soob rek mu xamalee sëñ Tuubaa noonu ci fànn ci fànn xam-xam yëpp na ko waxoon ci nuuru daanee rek wan fas bi sadriyal oloma naafiha waccaal xayaati li waccaal xayaati li nabii naafiha maa ngi lay ñaan nga wëttu sama dënn bi sama dënn bi xam-xam yi am njëriñ yépp nañ nekk sama bit dënn waaye na nga def sama dund lépp muy njëriñ moo tax mu ne xàll ma ni xamal na ma alalimu yàlla mi nga xam ne mooy aji xam nan la ma xamalee mu ne taxlimal alim maanaam xam lekk aji xam maa xam nga yàlla dafa xam ba noppi yàlla ni mu xamee nag xam mboolem xam-xam yi xam fañ nekk wa ana laa qad axata bi kulli seen man na noonu ma xamalee nag moom yàlla moom ci jëmmam ji nga xam ne dafa xam ba noppi ni mu xamee léegi nag noonu la ma xamalee wax ju wax ju kawe kawe la kawe la ci wàll ci wàllu tasawuf nee na yàlla mi tudd alim nee na xamal na ma maanaam xam lekk aji xam ba ma ko doon misaalal ñi ne tey dongo bii kat dafa dem ci sëñ daara bi mu koy jàngal lu tax sëñ daara bi da koo gën a xam moo tax mu jàngal ko kon nag sëñ bi moom yàlla moo ko jàngal yàlla ni mu xamee noonu la ko xamale moo tax ma ne waxaada wa mat na moom yàlla lii ñeel ma fii xidmati ci biir liggéey bii nga xam ne moom laay liggéeyal ànd bii kat kuñ soloo ko alxoloom wa mat na mboolem xam-xam yi jox ma xam-xam yi ngay dégg yëpp ba ci xam-xamu ëtt yi sax nga xam ne sëñ Tuubaa sunu borom tabaaraka wa taala euh, yëpp da ko joxaale moo tax mu ne waxaada lii wa matal na ma moom yàlla fii xidmate ci biir liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal ànd bi katiguñ solo bi xomatal na ma aloloo mboolem fànn xam-xam yi ngay digg ci kaw suuf ci adduna bi mu ne wajjaxa jëmale na moom yàlla ilaa siwaaya mu jëm ci kudul man bihi ci darja yonente bi alayhi salatu salaam wajjaxa jëmale na bihi ci darja yonente bi alayhi salatu salaam ilaa siwaaya mu jëm ci kudul man kulla mafsada képp koo xam ne yàqkat la yàlla jëmale na ko mu jëm ci kudul man waaye ci darja yonente bi man yàlla mi nga xam ne kafaa fegal na annabi yonent bi xusara ñi nga xam ne ñooy woy kañaan yi yàlla mi fegal yonent bi alayhi salaatu salaam ñi nga xam ne dañ ko kañaani woon ci jamono ñëpp nee na yàlla moom moo jëmale saytaane ci dara ya yonent bi alayhi salaatu salaam mu jëm ci ku doon man waaye moo jëmale képp koo xam ne ab yàqkat la wala lépp loo xam ne lu yàqu la wala képp koo xam ne day yàq rek nee na yàlla xàjji na la nga jëm ci ku doon man moo tax ma ne wajaa jëmale na bii ci dara ya yonent bi ilaa waaye mu jëm ci ku doon man kulla mafsada képp koo xam ne aji yàq la kuy yàq rek ak lépp lu yàqu rek nee na yàlla jëmale na ko mu jëm ci ku doon noonu waaye ci darajaay yonent bi man yàlla mi xam ne kafaa fegal na annabee yonent bi xusala ñi nga xam ne ñooy woy kañaan yi sabba bila taslitin baaqil qadim ahdaaho ila siwal habdil qadim mu ne yàlla sabba joñ na albaqi yàlla mi nga xam ne mooy aji des alqadim tey aji jiitu jiitu koo xam ne amul fu mu tàmbalee waaye amul fu muy yem joñ na lan ah daa oxoo noonam ya bilaa tasliitin ci lu dul mu leen di xirtal di leen dàq bilaa tasliitin ci lu leen mu ci lu dul mu leen di xirtal joñ na leen ilaa siwaa ñi jëm ci fudul alxabdi jaam bii di jëmi sëriñ bi te mooy seexul xadim moom lay wax moom ci jëm boppam alxadimi kii nga xam ne mooy mooy ki sax dàkk di liggéeyal yonente bi alayhi salaatu salaam nee yàlla joñ na sa joñ na noonu yépp waaye bi mu leen joñee da leen xirtal bi mu leen xirtalee nag daleen leen dàq ñiy daw rek waaye nag duñu yenu ci sëñ bi nga xam ne mooy alxabdul xadim kooku moom duñu du ñu yenu ci sëñ bi nga xam ne mooy alxabdul xadim waaye nag yàlla da leen joñ xërtal leen dàq leen duñ jege sëñ bi dañuy daw rek di dem waaye nag duñ jëm ci mukk mukk duñ jublu mukk ci kii nga xam ne mooy alxabdul xadim nga xam ne kon turam bii ko neex la daanaka bu indi alxabdu rek bi nga gis ne day indi alxadim moo tax mu ne sabba joñ na albaq yàlla mi nga xam ne mooy aji des ji mooy ki fee sax ba faw waaye alxadim mooy aji jiitu ji nga xam ne am fu mu yem waaye am fu mu tàmbalee tas bilaa taslitin joj na lan ah daa oo noon yi bilaa taslitin ci lu dul mu leen di xërtal nag xërtal na leen waaye ci lu dul mu leen di xërtal ilaa si waa xërtal na leen ñi jëm ci fudul alhamdu jaam bi nga xam ne mooy sëriñ bi alxadim ki nga xam ne mooy ki sax dàkk di liggéey yonent bi alayhi kon daal yàlla xirtal na noon yi waaye nag bi mu leen xirtalee joñ leen jëm nañ fudul alhamdul xadim ki nga xam ne mooy alhamdul xadim te mooy jëmi sëñ bi mu ne bismun illaahi maa ngi bismun illaahi maa ngi tàmbale ci tur yàlla xabbasa ak a baax waaye arrahmaanu yàlla mi nga xam ne mooy aji xéewalaa kon bépp mi def ci àdduna neex ma est-ce que mooy ki nga xam ne mooy ko soob ci àlaxira man mooy ki nga xam ne loxoo ñeel na ko moom moom al asmaanu mboolem jamono yi nee maa ngi tàmbaliwaat ci tuuru suñu borom tabaaraka wa taala moom mi nga xam ne mooy ilaah nga xam ne bokkut ak allahu ilaah nag xiram yi dañ ko tuddee eh, ñi nga xam ne ñoo doon firxawna ak ku nu mel ak ku nu demee ñëpp daan nañ ko tuddee ne ñoom ñooy ilaahu waaye mos ñee tuddee seen bopp allahu waxoon naa leen tur yi yëpp ñi nga xam ne dañ daan woote nguur wala ñuy wootewoo yàlla dañ daan tuddee seen jëmm ji ilaahu kon ana rabbakumu lëx laa gis nga maa maalakum min ilahin xayri xayri fa awqit li yaa haamaanu ala tiini faccaxan li sarxan kooku gis nga na moo koy wootoon te mooy turu ilaahu moo ne woon gisuma geneen yàlla gudul man waaw gisuma geneen yàlla yoo xam ne moom ngeen di jaamu gudul man man rek maay yàlla man maay ilaahu waaye nag man maay ana rabbakumul axlaa man maay seen yàlla ji gën a kawe yàlla daal ak a baax dëgg-dëgg moom mi nga xam ne mooy aji xéewalaa kon bépp bindeef ci àdduna waaye ak a baax nga xam ne fixlu maa den lil max ci la day tagg suñu borom bu ne niix ma rek mooy est-ce que baax na ki nga xam ne mooy ki moom mboolem jamono yépp moo leen moom moom suñu borom mu ne alhamdu mboolem xaaji cant yi yi ñeent yépp lillaahi aji sax la ñeel yàlla rabbil alamina moom mi nga xam ne mooy borom bi defi waaye nag xalal amin yàlla na ko sopp ci ki nga xam ne mooy ku ñu wóolu gi wal amini ak ki nga xam ne mooy ku ñu wóolu ko te muy alxuraan wal amin ak ki nga xam ne mooy ku ñu wóolu ko ba tey te muy Seydina Jibril nga xam ne ñetti al amin yoo xam ne benn bokkut ak sa morom bii mi ngi ci jublu yonente bii alxuraan bi mu jublu ci Jibril mi nga xam ne mooy indi alxuraan mu ne mboolem xaaji cant yépp daal ñeent la moo xam sant yi sant gi nga xam ne yàllaa ko sant boppam wala mu sant ko ak jàmm wala sant gu nit ki di sant yàlla wala bindee fi sant gu ñuy sant ak seen biir ñeenti xaaj cant yëpp ñeel na yàlla mi nga xam ne mooy borom bindee fi mu ne cant yooyu nag yàlla nekk ci ki nga xam ne mooy ku ñu ko te muy yonent bi waaye ak kii nga xam ne mooy alxuraan te muy téere bu tedd bi waaye ki nga xam ne mooy Seydina Jibril mu indi téere bi eh, sunu borom wax yu ko tabaarikala mu indil ko kii nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne loxoo ñeel na ko moom yàlla sukóor yi samay cantuk cër banda xam din gannaaw sama sama cantuk làmmañ cant ak goo xam ne ak cantuk làmmañ goo xam ne sarmada dañuy sax dàkk wa innahu moom yàlla xat xamida aji sant la kulliyati sama lépp nee na ñeel na ko moom yàlla sama cantuk cër gannaaw bu ma jëlee sama cantuk làmmañ laa njëkk jël jox ko léegi nag damay jël sama cantuk cër yépp di ko jox nga xam ne amul dog ci luy sax ba faw day sax rek di ne ba faw ndax moom yàlla dafa sant sama lépp sama lépp lépp bul bàyyi dara kulliyat yi moo gën a mat matale kullu kullu am na lu mën a dugg am lu mën a génn waaye kulliyat yi moom lépp léppam léppam loo jël rek yàlla sant na ko lépp loo mën a jël rek yàlla sant na ko te muy bokk Sëñ Tuubaa nga xam ne boo ko limee limaale Sëñ Tuubaa rek kooku ci kuliyati lay dugg loo ñeel na ko moom saraftu wëlbatiku naa loxoo jëm ci yàlla wëlbati naa loxoo jëmee ci yàlla ku loolu xam ne bépp cantuk làmmañ abada ci luy sax ba faw te walaa yoojiwu moom yàlla du jëmale ilee ci man mukk kammadaa li nga xam ne mooy njàqare nee na wëlbati naa sama géppuk cantuk làmmañ sama cantuk làmmañ yëpp wëlbati naa leen jëmee leen ci yàlla waaye nag amul dog day sax ba faw te yàlla moom ma jëmale samay cantuk làmmañ de jël sama lépp wëlbati ko jëmee ko ca moom nee na yàlla moom du jël ay njàqare mukk di di ko jëmee ci man xaddaani yal haadi fala addilu wa an sabilillahi la uddalu nee na xaddaani gindi na ma mooy jubal na ma alhaadi yàlla muy aji gindi ji yàlla mi nga xam ne moo tudd alhaadi yi nga xam ne mooy gindi ku ko sopp wa inna laaha la si haadi lazina amanu ila sirati mustaqimin yàlla muy tudd alhaadi yi nee na mën a leen gindi na ma moo ma gindil boppam fala wa an sabilillahi wali si yoonu yàlla wi nee na yàlla moo ma gindi ci turam yi di alhaadi te man sëñ Tuubaa du ma a wàcc yoon du ma mos a réer mukk wali si yoonu yàlla yi waaye nag laa uddulu du ma réerale du ma réer du ma réerale kon boo ne falaa addilu mooy du ma réer waaye nag laa uddalu mooy du ma réerale ma du ma réer du ma réerale du ma sànq kenn kon daal man ci yoon wi laa jëpp ku ñëw topp ma ma nit ma jubal la kon rek noonu la moo tax mu ne xadaan yi gindi na ma alhaadi yàlla muy aji gindee ji falaa addile te du ma réer mukk genn gindi la am yàlla moom ko gindi ko naa te dootuma réer waxan sabilillahi wala si yoonu yàlla yi laa udla te duma réerale mu ko man na xaliyallahu bi istiqaama wa jaada bil kitaabi wal nee na man na xéewalee na ma man na xéewee na alee ci man allahu yàlla bi istiqaama njub mooy dama jub kocc istiqaama mooy koo xam ne dafa sax dàkk ci yoon yi nga xam ne du ko wàcc mukk inna lasina xaalu rabbana allahu suma staqaamu falaa xafun aleyhim wa laa hum noona lu jafe-jafe la mooy nekk na coow ci yoon yi mooy ñi nga xam ne dañoo wax ne sunu borom ay borom mooy seen borom waaye nag ñi sax dàkk yéeg ci kaw yoonu siraatal mustaqim sunu borom nee na bu yowmal xaame ñooñ du ñu ragal du ñu tiit njàqarama la muy bëri bëri tartar lu ñuy bëri bëri ñooñu dee du ñu jàq du ñu tiit du ragal dara moo tax mu ne yàlla nag moo ma xéewalee njub góob njub góob ci alxuraan muy istiqaama muy sax dàkk ci yoon yi te doo ko wàcc nee na yàlla moom ko xéewalee man na xéewale xéewalee na alee ci man alaaw yàlla bi istiqaama ci njub mooy sax dàkk ci njub ga bokkut ak huddaa waaye istiqaam mooy coow ca yono moom la Seydi Aj Maalik seetu loon Sëriñ Tuubaa ne mbooleem wëllu yàlla yi boo demee ci irwaax ne dan ko da nga ko fekk euh, bis ñëw na ñi fakkatalu def ak njombe dellu seen borom tuub bàkkaar ba waaye Sëriñ Tuubaa rek moom lañ xam ba mu juddoo ba nu muy xàmmee ba du muy doonee mag mostu wàcc yoon yi dafa judd rek topp sunna waaye wajjaada moom yàlla tabe na ma mooy may na ma bil kitaabi téere bi di alquran waaye nag wal iqaama ak sax ca yàlla tabe na ma alxuraan waaye sax ci alxuraan waaye sax sa njub ga waaye sax ci alxuraan nga xam ne alxuraan moom it dafa nekk jëmmi njub ndax kenn mëntu jub kenn mëntu jaar ci yoona te jàppoo alxuraan muy sa téere bi nga xam ne alxuraan dafa ñëw ngir di orienté ni di di leen gindi di leen jëmee ci seen borom ndax dan hudan lil muttaqin la yàlla wax njub la ñeel ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla moo tax mu ne yàlla xéewalee na ma njub waaye nag ba noppi nag wa jaada mu tabe ma may ma bil kitaab bi téere bi di alquran waaye nag wal iqaame ak sax ca di ko luññiti di ko jàng di xool ay max naa am nga xam ne ci lay gindee ko ci lay tegtaloo jëm ci suñu borom tabaraka wa taala mu ne nabiyu naa suñu yónent bi xar mahaa far na xani mu lis ma man sëriñ tuba almalaama yeddaange nee na yónent bi alayhi salaatu salaam nee na moo far ci man lépp luy xeeti yeddaange nee na man awma yeddaange kenn du ma yedd ci dara kenn mosuma yedd ci dara mosuma def bàkkaar bu ndaw mosuma mooy yàlla mosuma def loo xam ne ni xeeti mooy yàlla ndax yonente moo far ci man lépp looy xeeti yeddaange lu ko waral mooy damaa topp coow ci sunu si yonente bi alayhi salaatu salaam te duma ko wàcc mukk moo tax mu ne naa sunu yonente bi mahaa far na ani lépp loo xam ne ak yeddaange la saa xismatin mbir moo may boroom ak ñoŋ nga xam ne damaa ñoŋ ba nga xam ne mënuma bëtt tere ya li yàlla tere li yàlla digle mënuma ko bët dem ci li muy tere ndax damaa ñoŋ yàlla moo ma ñoŋal yàlla moo ma ñoŋal ba nga xam ne damaa ñoŋ manumay bàyyeekoo ci digle yi nga xam ne moom laa topp di dem ci teen yi déedéet damaa ñoŋ saa xasmatin mbir ma ma nekk ku ñu ñoŋal waaw wa fustu tuufu naa bi salaama ci mucc ci bépp ayib waaye mucc itam ci tarxees mucc itam ci wàcc yoonu lislaam mucc it mucc itam ci ñàkk a topp alxuraan waaye nag mucc naa itam tabarika la ci ñàkk topp li nga xam ne mooy ak istixaama ma saa xasmatin borom ak ñoŋ waaye wa fustu tuufu naa bi salaama ci mucc ci gépp ayib maanaam damaa dama mucc damaa laq ci mucc ci bépp ayib bépp ayib rek man Sëñ Tuubaa mucc naa ci moo tax ma ne saa xismati may borom ak ñoom waaye wafastu tuufu naa bi salaama ci mucc ci bépp ayib te xam ne léegi nag am naa jàmm mooy tege naa ci yoonu sunna tegee naa ci yoonu siraatal léegi mucc naa ci yooyu yëpp benn lor dootuma gàllankoor xaq baat yëpp jéggi naa leen ba léegi rek sëriñ baa ngi ci ni ko yàlla musalee ci seytaane waaye képp koo xam ne noonee ngoo ko fooy mujj mooy alaku ak i torox rekk ci ngay mujj ba tey sëñ baa ngi di nettali xéwal yooyu nga xam ne sunu borom moo ko defal waaye lépp bu koy wax rek day wax waxi ni koo xam ne day sant ngir min baabi taxadusu bi niamillahi tabaraka wa taala tey ñu war a dale ci ilaa waaye durru kal ahda i wala ulaaxi mujibaati daa i ba léegi rek mi ngi ci yàlla ni mu ko musale ci seytaane comme ni mu tënkee xasida gi rek day wane ne yàlla du ko musal ci seytaane te mooy auzu billaahi min seytaane jëm la moom la tënkee xasida gi sëriñ bi ne ilaa si waaye daw na jëm ci ku man ad durra lor kël un daa yi ni noon yi te man sëriñ tubaa wala ulaax yi du ma dajeeg mukk mukk mukk moo jibaati daa yi lépp luy waral jàngoro lépp loo xam ne day waral jàngoro rek day sabab jàngoro rek Serigne Touba nee du ma dajeeg moom nee ne lor gu man di doon rek maanaam du ñëw ci man daw na jëm ci ku dul man noon bu mu a doon rek moo xam noonu saahir la ak bu baatin nee na du man man parce que yàlla musal na ma ci bépp noon rek yàlla musal na ma ci du yegg ci man yàlla dàq na ko mu daw jëm ci ku dul man ak lor te lépp li waral jàngoro jàngoro moo xam muy jàngoro weddi yàlla wala ay gàkk-gàkk buy nekk ci jëmmi doomu aadama bi sëñ Tuubaa nee na loolee du dajeeg man mukk taqaliko naa mboolem jàngoro yi saahir ak baatin moo xam jàngoro weddi la wala jàngoro joo xam ne damay nooyal sama kàddu jëm ci noon yi ngir di woyee seenu bëgg-bëgg yépp man sëñ Tuubaa teqaliko naa moom tudduma dajeeg moom moo tax mu ne wala ulaaxi du ma dajeeg moo jibaati daa yi lépp luy waral jàngoro moo xam jàngoro gu weddi la moo xam jàngoro ay gàkk-gàkk la moo xam jàngoro xol la lépp rek la waaye bu waxee jàngoro nag li ci ëpp xol bi la ciy jublu xol bi ndax xol day am jàngoro xol bu amee jàngoro rek yaram bi yëpp day feebar moo tax moo xam ne lam yeen ku xal bi daaxi li bi aw daaxi sal bi aw daaxi nit ki tey bu sunu borom nit ki tey bu ak ngëm yàllaam rinkeekoo rek loolu mooy jàngoro xol bi gën a mag moo tax mu waxee ko noonu lam yenu xal bi daay la xal bi sama xol lu ñuy wax nëx-nëx du ko jublu wala lu ñuy wax salbu muy ak rinkeeku ak ngëm yàlla du ko jublu lii yëpp du jublu sama xol mu ne li xayri yal fasaadu wa saytaanu yëttiibu lil majlisu wal awtaanu mu ne bu dana teeyal moom yàlla lii ñal ma al majlisu fépp fu ma mën a jotaay wal awtaanu ak samay dëkk yëpp nee na yàlla def fépp fu ma mos a jotaay rek dana ko teeyal mooy luy lore du fa jege kuy lore du fa nekk waaye fépp fu ma mos a dëkk rek yàlla dana teeyal dëkk boobu kenn du fa jàq tabarkal waaye li xayri ya daw na jëm ci ku dul man alfasaadu képp koo xam ne ab yàqkat la wal fasa wa saytaanu ak saytaane nee na saytaane ak képp ku jóg di yàq nee na kookee dana daw jëm ci ku dul man te yàlla teeyal na samay jotaay yi fépp fu mos a jotaay yàlla teeyal na ko samay dëkk yëpp yàlla teeyal na ko li xayriya jëm na ci fu dul man alfasaadu lépp lu yàq wa saytaanu ak sayaat ak saytaan yi moo xam lin si wala jinni waaye yëtti bu teeyal na moom yàlla lii ñeen ba almali samay jotaay yi wala awtaan ak samay dëkk yi ba tey nee na saqaawatun wa dararun wa wallamu ila siwaaya yantahi wa allamu nee na saqaawatun lépp luy xeeti texee di wa dararun lépp luy xeeti lor wa la mu lépp luy xeeti yeddaange nee na yantahi dana daw jublu dana jublu ilaa si waaye jëm ci kudut man waaye wa alla mu ak méttit neen ñi li ñuy tuddee saxaawatun te muy ak texee di li ñuy tuddee dararun te muy ak lor nga xam ne buñ arab bu ne darar rek mooy lor goo xam ne dafay bàyyi ko ci noonu buñ ne saxaawa nag mooy texee di suñu borom bind ne kii dafa war a texee di wala muy jëf jëfinu ku texee loolu yëpp day dugg ci biir maxnaa bi nee na loolu yëpp ak lu ñuy wax yeddaange nga xam ne nit ki léeg-léeg bu nekkee ci yi nga xam ni suñu borom sant ko ko digal ko ko mën nañ ko cee fekk yedd ko bu yowmal xayaamee suñu borom mën na ko cee yedd loolu yëpp mën na cee am sëñ Tuubaa nee na yii yëpp du jubli ci man daw na jëm ci ku dul man waaye li ñu tuddee ak métti itam kenn mënut ma ko teg ndax suñu borom musal na ma ci lépp lu xëyti métti ak texee di ak lor ak yeddaange yëpp danu ñu daw jëm ci ku dul man lépp rek mucc naa ci man sëñ Tuubaa kon saxaawatu lépp luy xëyti texee di wa darru lépp luy xëyti lor waaw walla mu lépp luy xeeti yeddaange nee na yenn tax yi dana daw dana jublu ilaa siwaaya daw jëm ci ku dul man wa àll mu ak méttit yii yëpp daal ci gàttal suñu baram protégé na ma noo xam ne lenn loo xam ne mën naa yiti ci man amul te ba ilaa aqri yi nag ba ilaa yu mit bas lenn du ci jublu lenn du ñëw ci man kenn mënu ma ko teg lépp mucc naa ci nee na yesooxu dana màng man yàlla mi nga xam ne lay sa loxoo déet di ko ñeel mun naa siw ak xëccoo yàlla du xëccantoo kenn lépp lu mu bëggal boppam defal ko boppam te dafa am sañ-sañ ci lépp nee na moo moomee na dana màng li xayree mu jëm ci fudul man alxedaan nooni te falaa unaasoo man sëñ Tuubaa déet may xëccoo xam ne daf laa ne yàlla dana màng yàlla mi nga xam ne du xëccoo mukk lu mu du koy defal boppam nee na dana màngu nooni nag dàqaleen ñu jëm ci ku man man sëñ Tuubaa du ma xëccoo ndax dafa waxoon ci geneen xasida na lam yan xuni mu nation isbil hawa yu nation wali yërëb yi nation sikran musi la waxami sëñ Tuubaa nee na xam naa luy waral xëccoo ñu ne ko lan la mu ne mooy bànneex nee na du mu jublu mukk mukk mukk ak xëccoo ndax lu ko a isbil hawa yu nation ñaare loo gis ñuy xëccoo rek bànneex la waaye man nag waliyu rabbi nation bu may xëccoo damay dem di xëccoo sikran musi la waxami muy alquran ji nga xam ne ku jàppandi ci moom mu dindi ci yow lépp lu sikk sàkk ak defle kon man bu may xëccoo alquran lay xëccoo waaye du ma xëccoo àlli na ndax lépp li ñuy xëccoo rek bànneex la moo tax mu ne dana màng yàlla mi nga xam ne du xëccoo mukk lu mu bëgg ko boppam nee na dana màng noonu ñu jëm ci ku dul te man sëñ Tuubaa du ma xëccoo bàyyi na ba tey wax jooju mu ne taafa laayenu li siwaaya sarmada taraddoxool baqi li xayri mukkumada nee na taafa dana wër àllaaynu kañ rëbb ko te mooy iblis laxnatullahi alayhi li siwaaya jëm ci kudul man sarmada ci luy sax ba faw te taraddoxoo dàkku na ko albaqi yàlla mi nga xam ne mooy aji des li xëyri mu jëm ci ku dul man waaye mukkuma daa mbir moom muy aji jàq nga xam ne fu mu toll rek da sunu baram da koy da koy jàqloo fu mu toll rek day daw di bàyyi xel sëñ Tuubaa sunu borom da ko dàq ba noppi waaye yemul ca dàq nga moom iblis buy daw day ànd ko njàqare fu mu toll rek jàpp ne sëñ baa ci gannaaw nga xam ne ay mbiram dara baaxut ci sunu borom du ko musal ci lépp luy seytaane ak li xeet ak seytaane moo tax mu ne moom iblis dana wër di daw jëm ci ku dul man te yemul ci sax yàlla da koy dàqu mooy mooy bu jubloon ci man yàlla da koy xàjji mu dëpp comme ni nga xam ne nag nag wu mar wala jur gu mar bu demee ca mbalkam nga dàq ko nga xam ne bokkul ca naya moo tax nga dàq ko mu dëppaat nee na suñu baram nag noonu lay jëflante iblis sama diggante ak moom bu nar a ñëw rek suñu borom dàq ko rek mu dëppaat waaye nag bu ko dàqee mu dëppaat di daw day daw di dem waaye nag ànd ko njàqare moo tax mu ne taafa dana wër àla ay ne ku ñu rëbb ko li si waaye ñeel ku dul man sarmadaat ci luy sax ba faw te taradoo na ko albaq yàlla mi nga xam ne moo fiy sax moo fiy des ba faw li xayri mu jëm ci ku dul man waaye nag mukkuma daan mbir moom doon ku ñu jàqaloo nga xam ne day jàq léegi fu mu daw jëm rek yàlla da koy dàq muy gën di daw waaye fu daw rek day gën a jàq jàpp ne sëñ baa ngi ñëw ci kom mu ne alla mu man xasadani laa yan sorim wa bisru yan xarim sëriñ bi ne alla mu man méttitalu képp koo xam ne xasadani kañaanee na ma laa yéen sëriñ du doog mukk mukk mukk wa bisru man mbégte képp koo xam ne yuhibu nii bëgg na ma laa yéen xarim du ràpp mooy du xët sëñ tubaa nag booy xool ñaar la gën a jippi ñaar la gën a mere mooy ban mooy ki nga xam ne ni yàlla def sëriñ tubaa neexut ko nga xam ne si yëpp laat yàgg na koy wax nee na sëriñ Tuubaa ñaar ñi rek booy xool koo xam ne ni ko yàlla def moom jëmi sëriñ bi maanaam kookee ni yàlla def sëriñ Tuubaa neexut ko ak koo xam ne fu ñu tuddee sëriñ Tuubaa koy tëkkale ak kinam moo tax moo ko ne xaabat xulaatiya maalu saadi mus sama nii xustu bi laa kasaadi nee na ki ma bañ perte na ki ma kañaane perte moo tax sëriñ Tuubaa ñaar ñi gën a bon ñaar ñi gën a bañ ñaar ñi may gën a nettali seenu alkande ak seenu toskare ak seenu tabbi safara mooy ku ko kañaane ak ku ko bañ ñaar ñi moom nee na perte nañ ak alaxara moo tax mu ne euh, ki nga xam ne daf maa kañaanee maanaam méttital gu ko yàlla di méttital nee na du dog mukk te méttital gi fii ci adduna la koy méttalee mu dee yowmal xiyaam ñi di ko méttalee xam nga waxoon na ne walaa yu laa xoona maaraama walal baaba ki nga xam ne tey bëggul ma ci kaw njàq rek lay dëgg te la muy sàkku du dajeeg mu mukk te fu mu toll njàq rek ci lay dajeeg te bu yomal xiyaam yi du dugg aljana walal baaba buntu aljana yi ki nga xam ne nag daf ma daf maa bëgg muy safaane safaane safaan ak ki nga xam ne daf maa kañaane ndax xam ngeen ne alxasadu yonent bi nee ne ki nga xam ne dafa kañaan maanaam du sang du nekk ak sang ndax kañaan bokk na ci li gën a bon yonent bi ko nee na day lekk xolob nit ki comme ni nga xam ne tey boo taxanoon say matt dugal ko ci biir safara safara ci lekk ko ba mu jeex takk noonu lay kañaan di def xolo nit ki day lekkaale yaram bi moo tax ñaareel ñu bëri da ngay gis ñiy jeex di feebar rek lu ko mooy kañaan defal nit ki seen xol bon ca dagg ca te nañ ca dara noonu la ñuy def nag ba tàggoog ah, jëlee ci xeer boo xam ne kenn du ko mën a euh, natt moo tax mu ne àll mu man méttitalu képp koo xam ne xasadani kañaanee na ma ni ne laayeen sirim du doog mukk méttitalam du doog mukk adduna ak àllaaxira waaye wa bisrumaan mbégte képp koo xam ne yuhi bu ni bëgg na ma laayeen xarib du ràpp mukk mooy du xët nga xam ne kon alxasadu luy luy luy safaanam mooy yuhi bu muy bëgg nit ki kon dañoo bëgg nga bëgg ko Euh, ni ni ko yàlla def mu neex la waaye nag bañ koy kañaanee kañaan mooy li yàlla def nit ki nga kañaanee ko ko te yàlla moo ko def yàlla suñu borom taala taala mooy ki ko def naxat li xayri darari aqdaaru man lahul baraya wal fiaalu wa saman sëriñ bi ba tey mi ngi continuer ak ñun ba léegi rek di wane nu mucc ci xeetu lor yi moo xam lorog boppam la wala lor gi bee ko ci mbindeef di ñëw ci moom lépp sunu borom da ko cee musal moo tax mu ne naxat dana jublu li xayri ñeel fu dul man darri sama lor man amatuma lor lor yi dar nit ki yëpp yëpp yàlla génne na ko ci man kanaa keneen koo xam ne nekkut ci lu yàlla bëgg moom lay dal waaye man nii sama xol dafa set wicc kañaan nekkut ci ndistal nekkut ci ndéggatal nekkut ci mbañal nekkut ci li yëpp nekkut ci moo tax mu ne sama lor dana daw jublu ci ku dul man waaye du ma gaañ ndax nit ki léegi da dafa am loru boppam loru boppam nag mën na koo gaañ sëñ Tuubaa nee ne sama lor nag maanaam génn na ci man du ma lor mukk nit ku ne am nga sa ayu bopp min sari nafsi wa saytaanin wa hahaati nañ ko jàngale woon ci xasit Ahmad Suleymaana man tam ne naxat dana jublu li xëyri ñeel fu dul man darri sama lor waaye loolu nag aqdaaru man ci kattanu yàlla mi nga xam ne loxoo ñeel na ko albaraaya bindeefi la walu fi aalu ak jëf yi wa saman ak jamono yëpp nee loolu nag bu amee muy sama lor yëpp yëpp dindee ko ci man daw jëm ci ku dul man nee na loolu ci kàttanu yàlla mi nga xam ne moo moom bindeef yëpp waaye moom moom jëf yëpp waaye nag moom moom jamono yëpp bindeef yi moo leen moom moom seenu jëf waaye moom moom lépp lépp waaye moom moom mboolem jamono yi mu ne inna la si yaaba suróor yi yekk mudu ama la si yatlubuhu fa yahmadu mu indi bay bu doy waar nag mu ne inna la si ki nga xam ne yaaba dana bañ suróor yi ni ma yàlla def suróor yi samay mbégte kooku de yekk mu du fexlu mu daariyoo la des na ko jàqloo mooy buntu wërsëgam yépp dañ koy tëj kapp dootul amati dara waaye xolam fu mu day métti day sens lu ko waral mooy saa yu xëyee la tax mu bañ ma wala mu kañaanee ma day gën a gis suñ borom di ko yokk am na ci noon yi ñoo xam ne bañ nañ nit ki ba bañ bañ ko bañ koo xam ne bu buñ mënoon tey asamaan ci jëmi boppam wàcc seen kaw bopp bi ñi ñàkk seen alal yépp ñoom ñu jël ko kon yonent bi nee ne nit ki dana kañaan waaye nit ki dana ñeetaan ne ne lii lan mooy ñeetaan ñu ne ko yonent bi mu ne ñeetaan do mooy nit ki am dara nga yéenee ko ko bañ mu ñàkk ko waaye nag nga yéene koo am nee na loolu baax na maanaam nit ki am dara nga bëgg koo am comme moom waaye nag nga yéene ko ko nee na loolu mooy ñeetaan waaye kañaan mooy loo xam ne nit ki dafa am dara nga bëgg mu ñàkk nga jot si nga xam ne ba dara boo mënoon mu dee nga jot ci alal jiw wala alalam ji ñàkk ko yow it nga ko nga xam ne loolu mooy kañaan moo tax sañ bi ne ki nga xam ne dafa bañ sama mbégte mooy ni ma yàlla def kooku yekk mu des na ko jàqloo des na ko jàqloo ba faw inna la si ki nga xam ne yaaba dana bañ suróor yi samay mbégte yekk mu di des na ko jàqloo waaye amaa les yi ndaal ki nga xam ne nag yet lu buxoo dana sàkku sama mbégte mooy ni ma yàlla def kooku fa yéex ma du des na ko sant mooy fu mu toll boo ko gisee sax bu fekkee amut dara boo ne ko sëriñ bi sawaay ci loo nekk mu ne maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla gis nga ci murit gi léeg-léeg foo leen bettee am na ñoo xam ne maa ngi sant sëriñ bi rek parce que lu ko waral mooy dañoo bëgg jëmmi sëriñ bi ku jëm jëmmi sëriñ bi nag doo ko wax sawaay na nga def bam na la maa ngi sant sëñ bi déedéet c'est que sëñ bi nekku ci xolam sëñ bi nekku ci bëgg sëñ bi nekku ci bëgg sëñ bi nag boo ko defee bëgg nga yónent bëgg nga yàlla loolu si laa def naan jàngaloo na ci lu bëri kon nag ki bañ sama mbégte des na ko jàqaloo waaye ki nga xam ne day sàkk sama mbégte nag kooku fu mu toll rek ci sant rek lay dëkk te sunu borom dana sant léppam sëriñ bi dana sant léppam yónent bi alayhi salaatu salaam dana sant léppam kon nag amaana si mooy ni ma yàlla def kooku fa yeex ma du des na ko sant yàllaay sant léppam yonent bi sant léppam gaa gaa ñu baax ñëpp sant léppam kon gis nga bokk na ci rafetu woy ak mën a woy nga xam ne bu indee lii day indi contraire lam moom la ñuy wax ti baax ci wàllu bayaan lii la wax ti baax mu ne li kulli man lam yahwani nadaama dunya wa uxra malqila adaama ba léegi nag mi ngi ci ki nga xam ne bëggut ko wala mu noone ko fu muy mujjee ak torox tànjam nu muy toll mu ne likku li man ñeel na képp koo xam ne lam yax wani soppun ma ñeel na ko naddaama ak réccute ku ma bëggul rek sëñ Tuubaa neen réccu doon ci kaw suuf ndem bëggooma rek da nga yàgg ak ñàkk waaye ku ma rek ku ma sopput rek nee fan mu ne dunyaa fii ci àddina wa uxraaka ak alaxara kon engagement xoolal bii engagement rek sëñ Tuubaa rek ko ñemee ku ma bëggul da réccu àddina ak alaxara waaw kon nag loolu daf mat a bàyyi xel li ku li man na képp koo xam ne lam yeex wa ni soppun ma daama ak réccu ñeel na ko réccute duniyaa fii ci na wa uxra ak alaxira tama addaama dana sax dakk-dakk alxillaa di dajee ak la koy naqari rek muy ak mbañal maanaam saa yu xëyee xolam di gën a bon fii ci na te bu dee suñu borom lakk ko maa addaama mooy dana sax dakk alxillaa di dajeeg maanaam la muy bañ rek la muy bañ rek lay dajeeg du moso dajeeg la ko neex lu ko naqari képp bët bu set xolam di gën a xar ngir lan bañ sëñ Tuubaa rek kooku dana rëcc ut nag alaxira maa adama dana sax dakk dakk dakk alxilaa maanaam di daje li nga xam ne da koy naqari te mooy li muy bañ moom lay daje sëriñ bi na rajaa man xaalafa nii muqayabu bi man atat minhu illa yalquyabu nee na rajaa man yaakaaru képp koo xam ne xaalafa ni wutee na ak man jëmmi sëriñ bi nee na muqayabu lu ñuy sooyal la <laughs> maanaam képp koo xam ne nee na wutee na ak man li ma bëgg bëggut ko wala mu bañ ma wala mu kañaane ma nee boo yaakaaroon ci yàlla bët bu seen nga di ko jaamu di dugg xalwa yàlla du la nangul loo mën a yaakaar rek yàlla du la nangul sa yaakaar yépp ay sooy lépp loo njort ci yàlla wala nga njort ko ci nit rek sa moromu nit rek nee na yàlla da koy sooyal da koy nakkal doo ci am dara moo tax mu ne yaakaar képp koo xam ne wutee na ak man mu xayebu lu ñuy sooyal la yàllaa koy sooyal nag man ci kat ka xam ne te mooy yàlla dikk dikk na min hu bàyyi koo ci moom yàlla ilee jëm ci man sëriñ Tuubaa bu kumpa yi nee na loolu nag maa ngi ko amee ci dara jaay euh, maanaam ci kàttanu yàlla ci mbaaxuk yàlla mi nga xam ne maanaam day koo ci moom di ma dikkal man jëmi sëriñ muy kumpa ay kumpa yoo xam ne sunu borom moo ma koy xamal di ma wan ci moom ay kumpa ak ay secret dama ilham di ma xamal ay kumpa ak ay secret moo tax ma ne yaakaar képp koo xam ne maanaam wuutee nag man ku ñuy la yàlla moom ma ko xamal ci ay kumpa yi nga xam ne moom la may aawaaya di ma xamal ay secret dama ilham nee na yàlla moo ne ma képp koo xam ne wutee nga yow yow sëñ Tuubaa rek yaakaaram dañ koy sooyal ma toon bi man ci kàttan yàlla mi nga xam ne atta dikkee na min fu bàyyi ko ci moom ilay jëm ci man alxuy bu kumpa yi daat na jasa uman kaa badanii niiraanu wa ajruhul xisyaanu wal xusraanu jasa uman payu képp koo xam ne kaa badanii jànkuwante ak jànkuwante na ak man liwatoo na ak man nee na payam aniraanu mooy safara wa ajruhu payooram alxisiyaanu mooy gàcc mooy gàcc ak adduna ak alaxira waaye nag wal xusraanu ak perte moo xam adduna ak alaxira nee na képp koo xam ne dafa ñëw di jànkuwante ak man di ma teg ay na ak i coono di liwtu ak man nee na kooku payam mooy safara yowmal xiyaam safara rek lay dugg waaye payooram itam mooy gàcc adduna dana fi am gàcc yowmal xiyaam dana fi am gàcc waaye fii itam dana fi perte te mooy adduna yowmal fi moo tax mu ne jasa uman payu képp koo xam ne kaa ba dani jànkuwante na ak man muy di liwatoo ak man kooku niiraanu payam mooy safara wa ajroo payooram alxisaan mooy gàcc te mooy gàcc adduna ko alaxira wal xusraan ak perte itam na ko noonu fii ci adduna ak alaxira daal ne yuquudu dana womat man képp koo xam ne xaala fa nii wutee na ak man alxilaasu malaayika yu dëgër alxilaasu malaayika yu am doole moom nga dégg alxuraan ne alayha malaikatun si sidaadun laa yaxsuna laha ma amrum suñu borom nee ne safara de bëkk néeg ya fa nekk muy malaayika yi malaayika yu dëgër lañ yu tar lañ nga xam ne kuñ jàpp doo yëngatu sax benn malaaka rek bu la jàppee doo yëngatu waxuma la nag malaayika yi lay jàppoo yëpp kon malaayika yi bëri nañ moo tax mu ne képp ku wuteeg man nee na malaayika yu dëgër ñoo koy wommat jëmee ko fan di ko diri ci ay seen tabaarika la jëmee ko ci digg safara nga xam ne nañ koy kutanee muy wéq di wéq ànd koog naqar noonu lay Sëñ Tuubaa di misaalee fii mu ne yoqutu dana wommat man képp koo xam ne xaalafa ni wutee naag man kan mooy wommat mu ne alxilaasu malaayika yu am doore malaayika yu dëgër te mooy bëkkanee ki safara li maw di hen ko ci ab ñeel ko ci ab bërëb boo xam ne li ahlihi ñeel na ñooñ bërëb ñeel na ñooñ ba muy dillaasu wéq yu métti ak i ajjat yu métti ca mbit safara ak dillaasu buñ ko waxee rek mooy koo xam ne dañ koo kotom keel ko def ko lépp na muy wéqee mel ni koy siisu di ajjat méttit bi lu mu di ko yëg ndax kullama nalijat julooduhum badalnaahum juloodan xayraa suñu borom nee na bu ñu leen lakkee ba seen der yi ñor rek dañuy dañ leen di dañ leen di wétteewaat yeneen der yu bokkut ak ya lakk ñu ne ku lu waral lool mu ne lii soxla saaba damaa bëgg rek ñu mos mbugal mu métti bi ndax fa inna looxa jaanama laay muti fi wala yaxyaa duñu dund dund gu nekk safara waaye itam duñ mën a dee ndax dañuy ngi ju di dee waaye duñ mën a dee lañ fay nekk mooy lahum fiha safirun dañuy ajjat rek dañuy ajjat mooy du yuuxu kenn ku nekk di yuuxu te kenn du mën a xeet li sa morom moo tax ma ne malaayika yi dañ leen diri di leen womat di leen jëmee nag li maw di hen ñeen bërëb boo xam ne li ahli ñeen la ñooñ bërëb ba mooy ña nekk ca bërëb ba ak dillaasu mooy wéq yu métti ak mbugal mu tar nga xam ne nañuy wéqee moom lay wax ak dillaasu buñ nag dal la sa rek wala dilla dillaasu mooy ñoo xam ne dañ leen ceen ba noppi ñuy yokk ci biir safara waaye ànd ko yuuxu yu métti nga xam ne mbugal mu métti ci la ñuy nekk mu daanee xasida gi ne maha tawajjual heda wa darari illa ya baaxin bi durrari nee na maha far na tawajjual heda jublug nooni ci man wa daran ak lor maha far na tawajjual heda jublug nooni wa daran ak ci man nee na yàlla sunu borom de lépp luy xeeti lor ak noon yi yàlla far na ko dootul ma ki def loolu nag bàqin mooy yàlla mi nga xam ne mooy aji dex ji mooy ku sax ba faw te du fi jóg kon yàlla rek moom lay seedaloo jamono ju ndax gis ngeen turu albaqi rek lay jëfandikoo tur yàlla yi bëri nañ lool waaye gis nga albaqi rek lay indi moo tax ma ne maxaa far na taw a joxaat xeddaa jublug lo jublug noonu yi wa darat ak lor ilay jëm ci man kan moo ko far bàqin yàlla mi nga xam ne mooy aji des ji mooy ki fee sax ba faw te du fi beekoo yàlla moom nag kaana nekkal na lii ñeel man Sëriñ Tuubaa bi durari ci ay xiiwal yoo xam ne dañoo gànjaru ba mel ni wurusu ngalam ci ay may yoo xam ne dañoo gànjaru ba mel ni wurusu ngalam nga xam ne du koy maanaam durar ci turu xasida yi la waaye léeg-léeg du koy abbu nga xam ne léeg da koy abbu da àbb rek di ko tuddee maanaam li ñuy wax xéewal wala mu koy àbb di ko tuddee ay wëy wala mu koy àbb di ko tuddee ay tagg ak yu nu mel comme ni may jëfandikoo léeg-léeg baatab ab kaar rek nga xam ne daal yàlla jox na ko xéewal yoo xam ne xéewal yi duñ ko gis ci ku dul moom yàlla daal nekkal na ko ci loo xam ne maanaam duñ ko gis ci ku dul ko yàlla nekkal mooy lu gànjiru mel ni wurusu ngalam nga xam ne tur la ci wurus muy rafetee ak nu muy gànjiroo ak nu wurusu ngalam nu muy gànjiroo ak nu muy rafetee moom la koy nuróole maanaam xéewal yi nga xam ne moom la ko moo tax ma ne yàlla mi nga xam ne mooy aji des ji kaana nekkal na lii ñeel ma bi yoo xam ne maanaam ci man rek lañ koy gisee mooy bi durar ji maanaam ci xéewal yoo xam ne euh, dañoo yéeme waaye nag ba mel ni wursu ngalam na muy taaroo ma tax ma ne subhaana rabbika tudd na ma sell ak buur bi rabbil hasati moom mu nga xam ne mooy borom tedd nga xamaay si fa ne walis lépp loo xam ne dañu ko melal ci ay doom ak yi ci aju wasalaamun ñu yónni ña wala am sax dàkk te rafet lillaahi aji sax la ñeel yàlla rabbil alamina kii nga xam ne mooy borom bindee fi mbokk yi kon xasidi gi foofu la yem yal na nu yàlla defal dégg ak topp te nangul nu ko bépp baat buñ ci yàq yal nu ko yàlla jégal lépp in uridu ila lislam matatantu wa ma tawfiqi ila billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh rabbi ya ahmadu ala muhammadi hali xayru salawati samadi rabbi ya ahmadu ala muhammadi hali xayru salawati samadi baarik li allahumma fi xayaati wajal waadi wala